bismillah mbokk julli di mbokk taalibe yi ñu ngi leen di siyaaraat tey nak dañoo ñëw yéen fii Kouptibe du Kouptibe nag doon ab sanc ba nga xam Bassirou Mbacke ibnu Xaadimal Moustapha moom moo ko sancoon ci 1925 ci ndigalu waajuram wu tedd woowu dëkk ba nag boo duggee di nga gis ju yaatu ja nga xam ni ginnaaw sëriñ Bassirou fa taxawal mu di ci tamit dëkk bi bindoo na na nga xam ni dëkkub diine dëkkub yar ci sanc ba ko sëriñ ba sancoon ci ndigalu waajuram mu tedd wa daa mel ni barke boobu yëpp daf ko faa fekk si ñu dox ba sëriñ sëriñ Basiru Mbàkke mi nga xam ni moom moo dem tey bay imaam ca tiib ci julli juróom ak ci julli jumaa ànd ko waa dëkk bi billahi min ashaytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بالسادات هقى البكاء تبكي الأراضي عليهم كالسماوات هق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم tey nag dañ leen a ñëwuloon fii nga xam ni moo di daaraam jii nii nga xam ni da ko yor muy daaree tarbiya di jang dañ fi jàngale alquran di fi yar ay dongo di len tarbiya di len jangal tamit li nga xamni mom moy dunduk aduna nak lañ ci mëna def bam yewen tay nak dañ leen indi lon ñenn ñi nga xamni ci dongo lañ tay it lañ jangé bo mokal wara tare alquran layali عليهم والشهور معا مثل العشيب tari gi nag ñu ko tambalé ba ñu xëyee ca fajar lañ rek daal di tari fasiné tari baqara jëm ba nasi ci bobu nak la fa sëriñ bi jaaré dal di xol xool way dongo yi nga xamné ñom ñoy tari fal lañ ci toll ak ña leen saytu kanu ya'uddu

إن صدد الخبر من الحال والموت وليس منهم ليس من أن يقع عن الكلمة اليهود والمبان قيل من اليهود وما لم من هود ولقد جاءكم رسل من قبل البينات فسمعنا ما ذاك متى يسعى نقول لبسوا كذلك من المسلم مرتاب macam mara أو يقوى وفي ما بلغ ما بينه ونسى ورما فرقص بيلو في الفيلم في السراء وفي ما يوسف قال في عتنا قال قال لقى القيم سبينا أصلا سبا قال إتغرت في النساء وما نسيني إسا نسقول ورسول بيلو في الفيلم في ما يبا أصلا قلنا فرد على أساس فهو يعبد من جبالنا أتنا ربنا أتنا ربنا من هنا وعلمنا من لنا هنا قالوا موسى أنت بقوها أنت علمني مما مما نصدق قال إنك لن تستمع سبرا وبقى تسبرو على ما تبقى قبرا قال رسول بيلو سبرا ولا أسلا قبرا قال فبيلو تبقتني فلا فلا تسألني عن فلا تسألني عن فلا تسألني فلا تسألني عن شيء حتى أنسى لك من سكرة فأنت لك حتى أشارك بسبب لك أحرقتها للرعون لقد كده سيسيني ورا قال ألو قلنا لن تستطيع مهمة هي صبرا وقد صبروا أنا ما أرى من صبر قال لا لا تواقشني ببيان سيرو وأدركني من أبو مصرف أنت لقى حتى حتى حتى حتى يحلق حتى سالك يا القرن قال آه، آه، آه، قال ترى نفس لا بقى نوصل علي خرب تقسم عليه مسجد يقول ثلاثه دراب كلب يقول خمسه رسالة كلب خب يقول سبع وسام كلب ربي على وجه كلب رميه سالم كلب رجما للخير يقولون سبب وسام من كلب خرب على به ما يعلم الا قليل لا تعرف ما الا من عسائر ولا تستفر ولا تستفر من عار ولا تقولن لزيد نفع ذلك حدا الى يسع الله يسكر من ازال سيده وقول عسى ان ربي الاخر في نسد ولو زفك وزرات من الذين مزداد تندع كل على باله يزل وقع السماء والأرض أبصر بي وأسمع من دوني من ولي ولا يزل من هذا كل ما هو وعد من كلام رب كلام بدل كلماتي ولن تجد من دون ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون بالخلاء وعسير دون وجهه وجهه وجهه ولا تدع عينك عن كل سنة عيب ولا تدخ من نفعنا قلب عن سكوت معه هو وكان أمر فردا وقدر الحق من سافر من سافر ما أقول عن سكرنا وانزكنا وانزكرنا وتبع حبيب وقال امر فرد وقلنا امر مسافر مسافر فرنا احتنا لسنا اعبدوا صراط الرئيس تخصص خاص بما يكلم لي زغينا ليس السرع وسعى مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لن نؤجر ما سنع عملا ولا يكون جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يعلون فيها تجري تجري يعلون ونبي من تحتهم الانهار يعلون فيها نسالوا ان سابوا يلبسون ثيابا خضرا مثل الذي يستوى في عالم الملائكه من صاحب واسع المرتفع والدولة مثل رجل جعلنا لأعجب جنة منها نعب وأفنا بنار وجعلنا بينهما سرع كلتا الجنة إلى أرض كلا ولم تسلم من سنة فجر أخي الألو ونهارا وقال له سبر فقال سابي عبر أنا أكسب منك مالا وواصل برا ودخل الجنة وسأل ونسى قال ما أسن أنت بالعاصي أرقى ستر فاهلك خاموا سراعا لإحياء gannaaw ci loolu bañ toogee nag ba waxtu gannaaw tisbaar nga xam ni ci la xéewali ak ngir maanaam bégalee ko ñi nga xam ni ñoo doon tari ak seeni naataangoo yi ngir daara ji tajfu madaajia fi laylin junubahum naasina salma wa layla bil busharati fa haysuma ليلى ببهجتها عنها تولوا إلى المولى بطاعاته ينسون ليلى وسودا في قيامهم مستانسين بأذكار وآياته حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكر حند ولنا في المقالات قوم بأزلهة أعداءهم قهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده زهر وعزلة عن سيوخ بالإسارات قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع القرورات طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفي الرونات min tawbatin quddimat xawfin rajamaahu izaaru xusnin dawaaman bil xala gannaaw bañ génnee ci lool it bañ demee ba waxtu tàkkusaan nga gis tàmbale ci kuréelu xasida yi baadahu lisaana sore min baadi sere dajale leen ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo doon tari ca fajar ba noppi daal leen jox seeni neexal ànd kook ñi nga xam ni moom mooy waa daara ji ak kone yi nga xam ni ñoom lañ nekk ndooloon di jàng te biir loolu neexalee yemut ca loolu sëriñ bi neexal na ba neexalaale sëriñu daara bi nga xam ni moom moo leen yoroon ngir yor wu rafet ba mu leen yore ak tamit yor wu taxawaay ba mu leen taxawu ba ñu mën a mokkal alxuraan ba di ko tari sëriñ bi bég ci lool daal di fa yëkkati sax ay kàddu. mu ngi nuyu ñëpp. tey sant ñëpp tey gërëm ñëpp. tey sant ñëpp tey gërëm ñëpp. nee na ci li ñu tey amug cant ci li ñu fi dajale. Mm. alxuraanul karim. te muy alxuraanul karim. téere boo téere boo xam ne itam. tedd la. téere bu tedd la. waaye nag. nee waaye nag. jullit yëpp ko bokk. nee na jullit ñëpp ko bokk. waaye nag suñu borom moo ko moom. waaye suñu borom moo ko suñu borom dana maye ci li ko ñaan. waaye nag suñu borom dana maye ci li ñu ko ñaan. dana maye ci coobareem. dana maye it ci coobareem. ndax tab budul jeexal la. ndax tab budul jeexal la. waaye Serigne Touba dafa wax ni. waaye wali bihi. wali bihi. xad jutta bil kitaabi. xat joxta bil kitaabi. bilaa makaarihi wala xitaabi. bilaa makaarihi wala xitaabi. nee na suñu borom. nee na suñu borom. moom moom moom alxuraan. moom moom alxuraan. waaye moom moo ko may. waaye moo ma ko may. ci ci lu dul ay fexe. nee na ci lu dul ay pexe. wala ma di ci sonn. wala ma di ci sonn. waaye nag ci coobareem képp la. nee na kon alxuraan nag alali sëñ Tuubaa la. ci firnde ji itam. nee na ci firnde ji itam. mooy ji nga xam ne. mooy ndawam ji nga xam ne. ndawam yi. mooy ndawam yii nga xam ne. da cee bari ñoo xam ne boo leen gisee da ngay def ci dal lañ toll. da bari ñoo xam ne boo leen gisee da ngay foog ne ci dal lañu toll. te mën nañ koo jàng te duñ ko xool. te mën nañ koo jàng te duñ ko xool. loolu firnde ci li moomeelam gi. noonu loolu loolu firnde la lenn la ci firnde yi ci moomeelam gi. ndax loolu foo nee na loolu foo wër ci àdduna. li àdduna yaatu yaatu. li yaatu yaatu. doo ko fa gis. nee na doo ko fa gis. limum ndaw yu baree bëri. nee na limum ndaw yu bëree bëri. yoo xam ne mokkaloo nañ ko noonu. yoo xam ne mokkaloo nañ ko noonu. amul ci àdduna. nee na loolu lim boobu amul ci àdduna. fu amit benn benn lay doon nee na fu mu amit ci àdduna ay benn benn képp lay doon. waaye nee na bari nag fii rek la am. Mm-hmm. li ci matee sante it. li ci matee sante ci ay tuutànk jàng. mooy ñi nga xam ne am nañ ci ay tànk yuy jàng. ñoom ñoo war a gën a sant ñoom. nee na ñoom ñoo war a gën a sant ñoom it. Mm-hmm. bala ñi leen di jàngal di leen sant. nee na balaa ñi leen di jàngal di leen sant. ak ñiy jàng ak ñiy jàng. ndaxte gone gi saa yu dalee baasin baasin li sëriñ Tuubaa wax saa yu saa yu dalee baasin. nee na ndaxte gone gi li sëriñ Tuubaa wax saa dalee baasin. Eh, ay ñaari waajuram ak ñi koy jàngal. nee na ay ñaari waajuram ak ñi koy jàngal. Nenek bu fekkone ne dañoo am ak gett ci sawara. nee bu fekkone dañoo am ak gett ci sawara. bis bobé lay dañ. nee bis bobé lay dañ. bis bu rek. bis bi nga ne ci dal basin. kon wayjuri lucu lu ci gone gi bari le bari le. kon wéyjur lucu lu ci gone gi bari le bari le. moom mi dal. mom mi dal. ñoom it kenn ëppale wu leen ci. ñoom it kenn ëppalé wu len ci. motax mu ne war nañu sant. motax mu ne war nañu sant. ak ak len

sëriñ Tuubaa ni mu ko waxee muy wa xaysuma yu basmi yu sabiyu nee na ni ko sëriñ Tuubaa waxee wa xaysuma muy wa xaysuma yu basmilu sabiyu yu basmiyu sabiyu fii maktabin yuktab lahu aliyu fii maktabin yuktab lahu aliyu yuktab lahu aliyu wali walidayhi wali walidayhi wali man yuallimu wali man yuallimu baraatun min naarihi faltaxnamu baraatun min naarihi faltaxnamu faltaxnamu waaw nee na bu dalee basin rek nee na bu dalee basin ki koy jàngal. ki koy jàngal. ñaari waajuram moom. ak ñaari waajuram moom. seen safara dañ koy far moom. seen safara dañ koy far. dëkkal leen aljana. leen aljana. waaw ci kii soog a dal rek. ci kii soog a dal képp. rawatina nag kon mokkal bay nee na kon rawatina ci ki nga xamante ne daa mokkal bay tari. Mm. loolu loolu ab tàmbali rek ci jëriñ. nee na loolu ab tàmbali la ci jëriñ ji. Eh, ñi nga xam ne itam. nee na ñi nga xam ne itam. dañoo bàmmeel day lu bàmmeel day lu diis. waaye waaye ña fa ne. waaye ña fa ne. lu lu bàmmeel diis diis rek. lu bàmmeel diis diis rek. su fekkee seen doom daa jàng alxuraan. nee na su fekkee seen doom daa jàng alxuraan. ubbi kaamil bi jàng rek. ubbi kaamil bi jàng rek. diisaay bu amoon ci bàmmeel rek. nee na bu amoon ci bàmmeel rek. bisub keroog la ko suñu borom di dindi. bisub keroog la ko suñu borom di dindi. waaw loolu Serigne Touba ko wax. nee na loolu Touba ko wax. fa kullu fa kullu في مصحف قرأته في مصحف قرأته لوجه ربك لوجه ربك أخي أخي خففت خففت عن والديك عن والديك في أمور القبر في أمور الحبر بإسن الجلال بإسن الجلال دون نكري nee na ci ndigalu suñu borom mi nga xam ne. nee na ci ndigalu suñu borom mi nga xam ne. mooy buur bu màgg bi. mooy buur bu màgg bi. te kenn du weddi ay waxam. te kenn du weddi ay waxam. sa doom ubbee ab kaamil jàng rek. bu sa doom ubbee ab kaamil jàng. fitna ju mu mënoon a fekk nit ki ci bàmmeel rek. fitna ju mu mënoon a fekk nit ki ci bàmmeel rek. sub keroog lay jeex. sub keroog lay jeex. waaw loolu lan njëriñ ko nee na loolu lan njëriñ moo ko moo tax mu doon wax naan njëriñ li li muy jëriñee ci àdduna. nee na loolee moo tax mu doon wax naan njëriñ li li muy ci àdduna. noonu lay jëriñee nit ci bàmmeel. noonu lay jëriñee nit ki ci bàmmeel. moo ne noonu lay jëriñee nit ki itam ci saayiru addunaam de. nee na noonu it lay jëriñee nit ki ci ci ci ci saayiru addunaam. waaw ndax ku koy jàng di ko xool bis bu nekk. nee ndax ku koy jang di ko bis bu nek te yalla rek tax do gumba do gumba serigne Waman ko wax wa man li qur'anin wa man li qur'anin kharabi nasari kharabi nasari matahu matahu rabbul wara bin nasari rabbul wara bin nasari bin nasari wa. man suñu borom da koy may ab jàmmam ci ab gisam bu do am ben sik suñu borom da koy may may jàmm ci ab gisam bu do am ben sik loolu ci njariñu saayir rek la bokk. nee na loolu ci njëriñu saayir rek la bokk. moo tax sëñ bi sax nee na dañuy xam dañuy bañ sax xëy ñàkk ubbi ab kaamil. nee na moo tax borom xam yi dañuy bañ sax xëy ñàkk ubbi ab kaamil. ndax ngëneel yu bari yooyu. ndax ngëneel yu bari yooya ci ne. Mm-hmm. nee na faxaadamoon nasri kulli yow mi. nee na faxaadamoon nasri kulli yow mi. fii mu safin kuliha hindal xaw mi. fii mu safin. kuliha hindal xaw mi kuliha hindal xaw mi. nee na ñàkk ubbi ab kaamil xool ko. nee na ñàkk ubbi ab kaamil xool ko. gaañu baax ña. gaañu baax ña. bokk na ci li ñu gënoon bañ. bokk na ci li nga xam ne moom la ñu gënoon a bañ. ndax ngëneel yi lay raw rek. ndax ngëneel yi lay raw rek. yi nekk ci ubbi ko xool ko. yi nekk ci ubbi xool ko. moo tax ñu bañoon ko lool. looloo taxoon ñu bañoon ñàkkoon a bañ a ubbi ab kaamil. Mm-hmm. alxuraan itam. nee na alxuraan itam. bokk na ci ay ngëneelam. bokk na ci ay ngëneelam. Eh, képp ku koy jàng. képp ku koy jàng. xam nga ab jaam li gën ci moom mooy mu jege yàlla boroom. nee na li gën ci ab jaam mooy mu jege yàlla boroomam. Eh, nee na nag alxuraan ku koy jàng. nee na nag alxuraan ku koy jàng. yaay ki gën a jege yow yaay ki su bëgg te it. su ne bëgg te it. waaw di koy jël rek. na nga ko daal di jël rek. boo def rek di def rek di borom. faman araadal xurba. nee faman min Maulahu. min falyaqra alquran falyaqra alquran la yansahu la yansahu waaw ku bëgg a jege yàlla képp ku bëgg a jege yàlla nay tey alquran di jàng rek nay tey jug alquran di jàng rek bu yàggee dara du dox digg nee bu yàggee dara du dox diggam boromam eh, waxaat na itam itam xam nga bu ne itam xam bu ne itam bëgg bëgg boromam ndax ndax dafa dafa dafa neex ba nga bis bu la ko di fay. bis bu la ko di fay. day melni li aljana neex neex sax koy neex. it koy gëna neex. bëgg nak nga di ko ci nga am ci jang alxuraan te diko ci sakku waaw moo bi wax ko. wax tax bi wax ko. ne khultu wa yurid ridar Rahmani. wa yurid ridar rahmani fal tusbitan tadabbural qur'aan. fal tusbitan tadabbural qur'aan. nee na ngërëmul yàlla ku bëgg. nee na ngërëmul yàlla képp ku ko bëgg. nay téye alxuraan di ko nafar rek. nay téye alxuraan di ko nafar. te di ko ci sàkku. te di ko ci sàkku. waaw moo tax mu ne. nee na moo tax mu ne. bul xëy bis ta jàngoo ko. bul xëy bis ta jàngoo ko. bu ko xeeb nee na. nee na bul ko xeeb. loo mën. loo mën. nee na jarul xeeb. nee na jarul xeeb. nee bu doonte ñetti isib sax ngay saxal par bis nee na bu doonte nit ñetti isib rek ngay saxal ab bis lu nit tayel tayel mën na koo jàng nee lu nit tayel tayel tayel mën na koo jàng ko jéem a saxal na nga ko jéem a saxal adim mu ne adim tilawatan tilawatan lisil kitab lisil kitab walaw salasatan walaw salasatan min al ahsabi ah. min al ahsabi daa bëgg daa bëgg ku koy saxal nee suñ borom daa bëgg ku koy saxal waaw bi sëriñ bi daa bëgg ku koy saxal saxal nag mooy loo xam ne bis bu ne nee na saxal mooy loo xamante ne bis bu ne da nga koy def. la ca gën nag mooy waxtu. nee na la ca gën nag mooy nga sàkkal ko waxtu. waaw na saa yu lu rëccee koo nee na mooy nga xam ne saa bu lu rek nga mën koo fay. loolu itam yéen dong yi jàng nañ ci farlu ndax. nee na kon yéen dong yi jàng na ngeen ci farlu ndax. dong ñaare bu bu jugee ci daara alxuraan rek. nee na dong ñaare bu jugee ci daara alxuraan. di soog a di soog a day mel dañ koo dëddaleeg téere bi. nee na day mel ne dañ koo dëddaleeg téere bi. waaw loolu nag mbirum seytaane dong la. nee na loolu nag mbirum seytaane la. waaw ki ñu yaakaar ñun lim ñu digal. nee na waaye nag ki ñu yaakaar ñun lim ñu digal. mooy lu nee na mooy lu nit yaafus yaafus. muy jàng ñetti isib par bis. muy jàng ñetti isib par bis. ñaar fukk moo gën. nee na ku mën ñaar fukk moo gën. ndax nee na ñaar fukk ku koy jàng. ndax nee na ñaar fukk ku koy jàng. doo fàtte. doo fàtte. doo ñàkk njël. doo ñàkk njël. am ngërëmul yàlla. te da nga am ngërëmul yàlla. kuy jàng ñaar fukki isib par bis. nee kuy jàng ñaar fukki muk. par bis. muk. fëtt mukk. do fëtt mukk. doo ñàkk njël mukk. doo ñàkk njël mukk. te da nga am ngërëmul te da nga am muy fan yu ne mu muy def ñaari par ñetti isib. muy def par ñak ñetti isib. muy def par juróom. ku ko mu dem ci ñett. nee yambar yambar yambare. war koo mën. maa ngi leen ci soññaat bu baax. mi ngi ñu ci soññaat bu baax a baax. di ci soññaat waay jur yi. di ci soññaat waay jur yi. waaw moom alxuraan moom. nee suñ borom ñi mu rek la koy jox. nee suñ borom ñi mu rek la koy jox. suma awras nal kitaaba nastafayna min ibadina. nee suma awras nal kitaaba lazi. nastafayna. nastafayna. min ibadina. min ibadina. fa minhum. zalimun li nafsihi. zalimun li nafsihi. wa minhum. wa minhum. muqtasidun muqtasidun wa minhum saabixun bil xayraati bi isnillah wa minhum saabixun bil xayraati bi isnillah bi isnillah waaw nee na nee na alxuraan moom suñu borom ñi mu tànn rek nee na alxuraan moom suñu borom ñi mu tànn rek la koy la koy jox la koy jox waaw ndax daa gën lépp ndax daa gën lépp moo tax ñëpp mënuñu mënu koo joxandoo ñëpp nee na moo taxit moo tax mënu koo joxandoo ñëpp ak leer la ak leer la waaye ni mu koy jox nag da leen tànn moom waaye ni mu koy jox nag da leen a tànn moom waaw waaye kum ci tànn ba jox la ko yëpp waaye nee na kum ci tànn ba jox la ko baye boo boo xam ne la gën moom. baye boo xam ne la gën moom. jox nañ la ko. jox nañ la ko. waaw damaa xamul nag yow noo koy téye. nee na daa xamul nag kookee nam koy téye. waaye la gën. waaye la gën. jox nañ ko ko. te te suñ borom ñoom da leen a da leen a dogul ñi jox alxuraan da leen a dogul. te nee suñ borom ñi mu jox alxuraan da leen a dogul. waaw nee na ñii. nee na ñii. dañoo dañoo dañoo dañoo jug rek baax. dañoo jug rek baax. ñi ko mën ñi ko mën. waaw kenn du kenn leen jubbanti. nee na kenn du leen jubbanti. ñii. ñii. dañoo farlu ba baax. dañoo farlu ba baax. ñii. ñii. doon ay kàccoor te kenn mënu leen tax a jub. doon ay kàccoor te kenn mënu leen tax a jub. waaye ñoom ñëpp ñoo bokk fi ñu jëm jannaatu xadnin yadxuluunahaa na xëy rek. nee na waaye ñooñu ñëpp ñoo bokk fi ñu jëm. Hmm. muy. jannaatu xadnin. jannaatu xadnin. yadxuluunahaa loolu mooy dogu gi suñu borom da dogul nee na loolu mooy dogu gi da leen a dogul. suñu borom leen dogul. suñu borom àjjana la leen dogul. waaye li ko waral. waaye xam nga lu ko waral. àjjana ji ci a kawe. nee na àjjana ji ci gën a kawe. nee na moom ay alxuraan ñoo tolloo ay escalier la. nee na moom ak ay alxuraan yi ñoo tolloo ay escalier la. boo ko mokkalee rek. nee na boo ko mokkalee rek. mën ngaa waat ne àjjana ji gën a kawe ca dëkk. mën ngaa waat ne àjjana ji gën a kawe ca ngay dëkk. loolu moo tax suñu borom dogul leen ko noonu. nee na loolu moo tax suñu borom dogul leen ko noonee. loolu kon nak lolu ab soññee rek ci ab soññee la ci alxuraan ci alxuraan ñu gën koo fonk gën ko japp nee ñu gën fonk gën ñi nga xamne ay wayjur lañ ay wayjur lañ lim doon wax ci tambali bi doon wax ci ay ngeenel kon ñom deg nañ ko kon ñom kon dara desatu len kon ñom dara desatu len di di Yalla ñi nga xamne itam ñi nga xamne itam yalla def nañu mokal ko yalla def nañu mokal ko ñoom lii seenub soññ. ñoom lii seenub soññ. mooy li mu doon wax ci saxal gi. mooy li mu doon wax ci saxal gi. di ko bañ koo bàyyi. di ko bañ koo bàyyi. te xam ne itam ñoom it. te xam ne itam te ne itam ñoom it. suñu borom jox na leen la gën. suñu borom jox na leen la gën. ñu téye ko nag. ñu téye ko. te rafet nuñ ko téye. te rafet nuñ ko téye. Euh, te xam ne. te xam ne. sant sant moo leen dese li des dund. sant moo leen dese li des ci seenug dund. Euh, ñi nga xam ne amaguñ ko itam. nee ñi nga xam ne amaguñ ko itam. ñu ñu fas yéene. ñu fas yéene. Euh, seen yitte yëpp. seen yitte yëpp. ñu ñu ko ci. ñu jëme ko ci. ak seen coono yëpp. ak seen coono yëpp. mu jaral leen bañ a nelaw. mu jaral leen bañ a nelaw. mu jaral leen bañ a bañ a lekk ba suur. mu baj mu jaral leen bañ a lekk ba suur. ñu fexe ko am. ñu fexe ko am. ndax jar na lu ëpp loolu. ndax jar na lu ëpp loolu. soo ci defee sa kéem kattan rek. nee na soo ci defee sa kéem kattan rek. te dëgg ci yow te dëgg ci yow. bu yàggee ba yàgg. suñu borom dala koy jox suñu borom dala koy jox. ndax moom ak leer gu ñuy joxe rek. ndax moom ak leer gu ñuy joxe la rek. waaw kon nag kon nag farlu it dana ko joxe nag. kon nag farlu it dana ko joxe nag. kon ñi nga xam ne yàlla def na amaguñ ko ñoom it. comme ñi nga xam ne it amaguñ ko. ñoom it nañ ci te te toll ci jàng tey jàng. te toll ci jàng tey jàng. nañ ci farlu te fas yéene koo am. nañ ci farlu te fas yéene koo am. waaw mu ngoog kon nag. nee na mu ngoog kon nag. waaw alxuraan moom. alxuraan moom. njëriñam. njëriñam. famu tambalé ba fi yam yem. fa ba fi mu yem. xajul ci aduna moom xajul ci àdduna. moom laa di wax ci taxit waxu wax ci ben jotay ñu xam ci rek. ndax dana tax ñu gën ko fonk. ndax dana tax ñu ak mel jang ndax yamul ci aduna dong. ndax ci dong. buñ déggé nim ko waxé noné mu démé ci aduna ni léram mo bis mu démé ci aduna yit démé ko ci bammel démé ko ci bammel noonu lay rammoo nit bis noonu lay rammoo nit bis penc. waaw ah, yóbbu àjjana ji moom dégg dégg suñu borom dogu. nee na yóbbu àjjana ji dégg ngeen dogg gi suñu borom dogu. Ah, loolu nag kon doy kon nee na loolu doy na sëkk. waaw ah, kon ñi ko amagul itam te ko yàlla nañ ko yàlla nee na ñi nga xamante ne am nañ ko te di ko jàng yàlla na leen ko suñu borom wërsëgale. bis bii nag li ko waral. nee na bis bii nag li ko waral. mooy màggaayu alxuraan moom. mooy màggaayu alxuraan moom. kenn mënu ko kenn mënu ko misal, kenn mënu ko misal? waye gone yi nga xamne wattu nañ ba diko tari tay waye gone yi nga xamne wattu nañ ba diko tari tay ñu di len berndel ñu di len berndel ak seen moroom donga. ak seen i yi dongo. ngir ngir ngir ngir barkelu ci barkeeb alquran ngir jëm ko magal lu tuti tuti rek. ngir barkelu ci barkeeb alquran jëm ko magal lu tuti tuti lolé rek lañ ci jublu. néna na képp la ci jublu. waaw laaj kon ndax ñom seen xol sedd na. néna mo taxit sëriñ bi néna na mi ngi leen laaj ndax seen xol sedd na rek laa ci jublu woon. nee kon loolu képp lu ci jublu woon. ku ci mokkal rek. nee na ku ci mokkal rek. dañ ko defal lu mel danañ la defal lu mel ni waaw kay jërë ngeen jëf. nee na jërë ngeen jëf. sant na ñëpp gërëm ñëpp. nee na sant na ñëpp gërëm ñëpp. nee na kon nag ñu doon tari. waaw nee na ñooñu ñoo ñëw jege si nii. mu jox leen li des si ba waxtu wi amma abu hafsin al ففي مزايا ولا يرتاب ديار وهو المتم سوي الإسلام يوم دا ميما بي كان للإسلام إزهار والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار ويوم أسلم جبريل الأمير أتى بإذن من وفاه خلق القهار معلما أن الإسلام الفتى عمر بسرى لأهل سماء والكل يختار بتعزز دين الله مرتفعا لو فضائل عنها كلت أفكار قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهدي وبإذن منه الأمثال وهو السراج لأهل الفوز في أتاه الحق مع عمر فالفضل مظهار ومن كراماته بعض الكتاب إلى نيل توقف ثم الماء مدراره أما ابن عفان أي عثمان سيدنا فحالوا فيه بالتفضيل إشعار هذا الشهادة والنورين ثم له من الرسول خصوصات وإصرار بات النبي إلى فجر يروم له رضا من الله تفضيل كبار رضا من الليس تطيل كبار تيه ورضوانا ومغفرة إزهار وفيه قال النبي عثمان يشفع في سبعين ألفا وكل حقه النار وهو الذي منه تستحي ملائكة والمصطفى فله قدر بلغ دار ومن كراماتي أن حافروا طم يوما على الدار سلما وهو صبار صلت ملائكة الرحمن يوم غضب عليه وفق الذي أبدته أخبار ومن قارقه أنزال من دمه على الكتاب ليادا فيه إنذار أما ابن عم رسول الله سيدنا زوج البطول علي فهو مختار لو شجاعة والعرفان مع شرف والحب والغرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو سبطين ثم لو هدى الملا ولخير الخلق إنذار لو أقر رسول الله منزلة منه كارون من موسى lii mooy nag li nga xam ni moom lañ leen jëlee loon fii ca Typ ànd ko ak waa Image

ليدفعن حلو ما يبقيه من جارو